alhamdulilah alkarim silmilan ala stighaali bi furudin wa sunan sakartuhu li annu qad saxani li watani bihi nafa ma anfani bismillahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu dul si waat ci seen numéro 1896 bi awnillahi di jéggulu dem bu taskil sabaa amul ci bu baax lu toll ci luy defaraat jikko yi waaye fan yi ak la ko jiitu lu gis wax ji bari jëm ci mbirum Pape Alé Niang mbirum Cour des comptes surtout mbirum Pape Alé bi nga xam ni bàyyi lekk gi ñu dafa bàyyi lekk bàyyi faju tax na am ñu yëkkati ay kàddu di ko xamal ni ko ab jullit nga li ngay def loolu xaru la loolu indi benn polémique ci biir ci biir wax sa xalaat yi ci biir groupe yi ba am ñuy dal ci kaw xalifa général yi di wax ni nañu jóge seen dëkk yi ñëw ci ndakaaru fekk si nit ñi ni ngi leen daal siyaaree foofu ñëw wax ak nit ñi masalan wax yoo xam ni sëñ bi li nga xam ni ku mer mi ngi wax koo xam ni nan wax ji nattatu ko mesuré wul li muy wax dal ci kaw kilifa diine yi bu baax a baax a baax a baax te loolu loolu mooy tudd tur rek parce que boo ne xalifa général yi laa wax yow tudd nga seen tur loolu mbir yi lu ko jëlul Matar Sarr suñu rakk jooju su fekkee dafa wax ni nañu xamal Pape Alé ni ko li muy def xaru la loolu amul wër na benn coow benn polémique waaye kër tëbe fi la ñëw ne kon sa wax ji des na danga war a àgg waxal ñi ko téye nii ñoom it am boobaa dañ ci am bàkkaar indi ca coow loo xam ni loolu jaru ko doo koy wool maxtaar xam nga ko mu xam la yor nga war sa bopp ne ko wax ci dégg naa ko am na solo de waaye xam naa yokkaat ci rek ni ñi ko téye ñoom it euh, bu faatoo ci lii muy def di ngeen ci am bàkkaar mu jeex waaye coow loo xam ni nekk ci groupe yi loolu daal mën naa ñàkk wax dëgg yàlla ci ay jullit fi tollu nii damay jàpp ni kuy dugg ci wax sa xalaat di wax yi la tara yi tax nga war a wax mooy euh, defar defar léegi nag loolu dangay ngay dugg ci wax sa xalaat far ba mu wér lool la nga far baax na di ca far bu bonee di nga ca far boo xamee ne bon na da koy jéem a defar boo xamee ne baax na nga di ko jéem a duufal di ko jéema duufal di ko yokk di ko yokk loolu moo fi mos a am loolu nag mbokk yi niñ ci musalee ñi nga xam ne ñoom bokk guñ ci mooy ñun li ñu ñàkk te ñu doon waxtaane fan yi te ñu war koo dellu si waat ay ci ay jikko dafa bari trop trop gis nga kilifa diine yi ñuy wax ah, liñ bëgg munta nekk liñ bëgg munta nekk mënuñu lu xalifa général di wax ak njiitu réew wax ko ci kaw mënuñu ko mënuñu ko de léegi nag euh, su fekkee ni yow loolu loolu nga bëgg amuloo ko ngay dal ci kaw kilifa diine yi yow te nga ab nga même boo dul ab jullit sax nga dib sénégalais yow da jàpp nga ni yaa ngi defar waaye yaa ngi yàq yaa ngi yàq teet teet yaa ngi tooñ yaa ngi tooñ kilifa diine yi ngay wax waaw ndax la ñuy wax ak njiitul réew la loola wax dëgg yàlla man nga ko bañ a xam li ni ñuy wax nag léeg-léeg am ñoo xam ne ñoom xam nañ li ñuy wax bu baax xam nañ ni kilifa yi du lépp lañuy ñuy yëkkati ca kaw waaye léeg-léeg nag day baax ñoom fi ñuy waxee ni xam naa bu kilifa diine gi àddoon ci nàngam ca kaw rek loolu dina yebbiloo ñu bari dina wàññi lu bari dina seral xolu ñi jàpp ni waxuñu ñi waxe foofu xam nañ ko bu baax waaye ñi nga xëy daanaka moom day mel ni ak tuutal ak mbañeel seen digg kilifa yi daal da ciy feeñ ñu ngi leen di bàyyi bàyyiloo xel ni bu ñu toppee mer mii ñu mer nii dinañ wax loo xam ni internet bi garde ko fi du doo ko mën a defaraat mu yàqal la loo xëy doo ko defaraat tey doo ko defaraat ëllëg waaw bañ fiy jàppee Karim Wade ngeen gis Cheikh Sidi Mokhtar jéego yam ci def ñaan ko njiitul réew mi waaye amu ko yu bari yoo xam ni jàll na fi ñu xam ko ñeen ñu xam ko kilifa diine ñaan njiitu réew mi amul njiitu réew mi fi nekk ni amul waaw kon nan ànd ak dal te wax ko ne ko suñu mbokkum jullit la euh, su fekkee ni wóolatul lekk gi ñu koy jox ci biir prison bi ndax ndax lu ne am na fi wu léegi nañ koy indi lekk ci biti ak naan ci biti bu di ko lekk ak di naan te xam ni yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg fee mu nekk insha allahu dafay jóge dafay jóge waaw mu gàtt mu yàgg mu gudd mu gàtt dafay jóge dafay jóge xoolal euh, Nelson Mandela ñaar fukki at ak juróom ah ñu tëj ko kaso waaye ba mu fu mujj ah, nekk ci bopp réew ma ci bopp réew ma kon kasu moom du xas du xas te jërul it bàyyi lekk ak naan Karim Wade moomu bi mu koy def Cheikh Sidi Mokhtar moo fi yónni doomam ni ko na bàyyi li muy def ndax moom ab jurit la mu daal di koy bàyyi kon foofu rek la suñu maxtaar di waxee ci digganteem ak mbokkum jurit moomu nga xam ni man mi xam maxtaar su mënoon a àgg ci moom day àgg ci moom waaye mënut àgg ci moom ba wax ko kon foog mu waxee ko foo xee bu ko waxee moom dinañu ko dégg te dinañ ko ko wax alaa kulli xaalis loolu la loolu jëlul coow waaw sama yeneen ñu mel ni man nag nekk ci internet bi nekk ci wax sa xalaat yi di wax joo xam ni wax yàq rek la waxu yee fitna la fii ci Sénégal nañ ko bàyyi nañu bàyyi waxu yee fitna ji man daaw ma diglu sax wax sa xalaat ci at yi yëpp waaye boo ci yemee nit xaaral ma diglu ko dangay mujj tiit nekkati nit ñi fa ñu nekk dañoo gën a dellu ginnaaw xam naa loolu dañuy yóbbu ci mbokk mi ni Euh, kilifa diine yi lan la leen yàlla sant ci bu jamono tolloo fii maanaam kilifa diine li ko yàlla sant mooy li mu santan yonent yi salaam ci nit ñi ndax ñoom ñoo fi wuutu yonent yi salaam ndax gis nga ñoom la nit ñi topp di leen jël seeni ndigal ak di jéem bàyyi seeni tere ñoom it ñuy jële loola ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu nisaam la boo xam ne xewal la ci jullit ñi léegi nag ñoom na yonent yi amee woon ay euh, nekk ak ay ay buur yoo xam ne dina am lu ñu bëgg ci buur bi buur bi bañ buur bi dina teg seen population loo xam ne jaaduwul ñu jëf ca mu sotti wala ñu jëf ca mu bañ a sotti dinañ am ak buur yoo xam ne buur yu jubla lañu bu yu yu amal njariñ seen population ñii am lii ñii am laa léegi it ñoom it foog ñu dund ko foog ñu dund ci seen wàll dund seen wàll léegi nag comme la gaaran yonente yi euh, da leen di gaar population yi ñoom la gaaran population yu nekkoon ak ay buur ak yonente yi alayhim salaam ñoomit it fokk ñu séentu yu mel noonu kon euh, ñuy def ndànk waaw na la alxuraan daal buy wax ni inna lasina yakfuruuna billahi wa rasulihi wa yuriduuna an yufarriqu bayna allahi wa rasulihi wa yaquluuna numinu bi baadin waaye wa nakfuru bi baadin wa yuriduuna an yattaxidu bayna dalika sabilan ah ulaayka humul kaafiruun xaqan wa atadna lil kaafirina azaban muina gis nga ko inna diina lillahi lislaam kon euh, kilifa diine du mën a bàyyeek boppam population bi ñu naa ko yaa jógal wax jógal def jógal nangam waaye population bi moom it na xam ne am na sañ-sañu wax sama sëriñ laaj bu bëggee laaj bu bëggee laaj am na wax yoo xam ne laaj yi lay doon waaw ak sàkku ci moom waaye mu ànd ak teggit sàkku ci moom mu ànd ki teggin waaye am na ci kàddu yu ñaaw de am na ci kàddu yu ñaaw yoo xam ne kilifa gi ngay wax am nay sët am nay doom am nay taalube te sa wax ji ñoom dañ koy dégg te du leen neex am na ci wax la ay tooñ la alaakul xaalim waaw waaye ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla weddi ab yonenteem bëgg séparer yàlla fële yonent bi fële wax ni dañuy gëm leen daal gëm nañ ko ci al lislaam waaye am na ci wax yi ko ci ci biir téere bi alxuraan indi ko bëgg nag nit ñi jaar ci méthode boobu yàlla nee na ñooñu lay dëgg-dëgg nee na ñii ñooy ay yéefar ñoom ñoo wedd yàlla te noo ngi préparel di xaare ñii ñu wedd yàlla mbugal muy doyadil nit kay mbugal muy doyadil nit ak amata bàyyi xel gis yàlla waxe nu ne wa rusulan qad qasasnaahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallama Allahu Muusaa takliiman rusulun mubashiriina wa munziriina li allaa yakuuna linnaasi sëñ bi laa doon wax ni radiyallaahu mursal moom nee na am ku yàlla solo ba noppi daal di koy jox ndigal mu wàcc suuf di woote di ab yonent yàlla jox ko téere muy di ko wax yu mu ni kooku du amati waaye nee na mursal du fi jóg xam nga yëwu ca dafa ne waaye mursal mooy koo xam ni ah, koo mi ngi wax ak ay nit yàllante kan mu xam la muy wax maa ngi fàtte sax nu mu ko waxati woon nee na kooku mursal la waaw kon am na fi ñoo xam ni danga leen di jàppee ñii ñoom ay ndaw lañ yoo xam ne ndawi suñu boroom ndax ñu ngi ci diine ji ay millions yi millions nit tey jii bu seen kàddu daanoo mu wax leen loo xam ne ndigal suñu boroom duñ ci am hésité dañ koy daal di jafe ah ba keroog mu fi jóge loolu di am kooku mu ni mursal la ci ñami waxal ci ñami waxal la wax loolu déggin la bu am solo lu loolu lan yàlla defal yàlla loolu lan defal ala kulli xaal kon loolu dañ ko doon ubbee gis nañ ci daal yu doy waar yoo xam daal ah am ñoo xam ne dañoo bëgg ñuy tudd ñi nga xam ni ñoom lañ ni dañoo jël alal ñu koy tudd ci min bari jaar seeni tur ndax ñu ne dañ ko war a xam ku ne recommandé yow na nga bëggee waxtaankat bi di waxtaane noonu saa yoo léegi ko waxtaan te la nga bëgg waxtaane loolu nga dal ci kawam yow mi nga xam ne yow amoo xam-xamu sharia waaye daal yaa ngi fi yor ginnaaw yomb na nga critiquer rek nga critiquer waaw ñi nga xay sax bokkul ci boroom xam-xam dañuy jàllaleel eh, boroom xam-xam yi seen xam-xam sax ñu nit dañ jot sul wàll waaye yooyu eh, taxuloo jóg ni nga jotee ay junniy nit junniy nit yuy jariñu ci li ngay wax di la ko àgge di la jariñ ci seen alal la ah, di la jariñ ci seen i moyen yow it boo amee ay benn benn yoo xam ne yow it ñi ngi gor say tànk ñi ngi lay ñi ngi lay gàjji ñi ngi lay rëkk ñi ngi lay dogaale loolu jàppal ni la seen blaat waxoon Cheikh Abdoulaye Dieye rek ba mu ko waxee ni ko ay jafe-jafe yoo xam ne daal day am ci biir liggéey lislaam bi da ko ni yàlla Ablaay bu lay may day mel ni day gagale gàngale ñi ko xamul xam naa am na ñu ko xamul bu njëkk amoon na boo ñëwee ci luuma bi marché bi day su ko day jóor benn jóor am na ci saag bu yàqu am na saag bu bees am na ci ak satala am na ci mbàjj mu màggat am na nangam na yii yëpp mu jóor ko gàngale ko boo ñëwee nii saag bi ñaata mu ni deet gàngale la gàngale mooy la ngay jënd lépp wala nga bàyyi lépp mu ni nag booy ñaan yàlla yàlla bu lay may nee day mel ni day gàggale mooy fokk am lu ca nekk loo xam ni boo doon tànn doo ko jëlaale yàlla kon euh, bu defalee kilifa diine yi cër bii mu leen defal ñoom it fokk jombul ci biir njaboot gi ñu am ci njaboot goo xam ni xamuñu lu leen di def njaboot goo xam ni dañ leen di dépensé njaboot goo xam ni Ah, bëgg nañ daal ñu euh, jub di wax lu baax waaye daal nañ mel mel nañ la ba pare am ci lag ñoo xay macha allah loolu moo loolu moo gaaran yonente yi alayhimu salaam bu ñu wax saaba yi saaba yi saaba li ñuy bari bari bari saaba yi dañoo gënaante woon saaba yi dañoo gënaante woon rawatina jamono jiinu nekk nga xam ni am na ñoo xam ni li ñuy yàq yenn saxaaba yi ah di ay sikk yoo xam ni waaye loolu ci ngir mi nu jàngee dañu saaba yëpp daal la doxal seen diggante sa yoon boobu ci nekk jàppal ne ñoom ñëpp gëm nañu yonent alayhi salaam ñoom ñoo gën ci nit ñi doonte xam nga ne am na fukk yuñ tànn ni leen yéen yàlla nee na àjjana mooy seen kër wax yonent wax ci Omar looxe waxu ko ci kenn wax ci usmaan lu mu ko beral wax ci Aboubacar lu mu ko beral wax ci Ali lum ko beral ak yeneen saaba yoo xam ne wax nañ loo xam ne ñoom doog ñoo ko am lu nag jamono toll foo xam ni nu war di jariñoo suñu jumtuwaay yii muy plateau yi ak minbar yi ak ci internet bi waaye bu nu ko fa nee wàcc nag nekk ci loo xam ni sëñ bi amul benn faayida loolu wax dëgg yàlla fi toll nii ah ku ci bëgg a pousser kilifa diine gi da ngay waaru ndax kilifa diine gi bu fekkee ne ki fi nekk demal na ca moom ni ko man day dama bëgguñu falaat ma buñ ma falaatee ci ñaareelu mandat bi ci laay yem kilifa diina gi léegi dangaa bëgg mu wax ci te déggaatul kilifa ga ni ko man kat laa waxan génn naa ca déedéet acte bi posé yépp kilifa diina ga du mooy wax ca kaw ni ko eh, yow nee nañ ma dangaa bëgg troisième mandat déedéet déedéet du ko wax loolu moom waaw xaw ma lu ko wax ca suuf de waaye ca kaw de du du wax ca kaw ni ko yow kat dégg naa damaa yaakaar nangam te moom waxagul dara waxagul dara su ko defee kon yooyu ñu bàyyi ko xel laa melekat waxtu wi dam na ma wasalaamu aleykum wa rahmatullah alkarim silmilan alastihadi bi furudin wa sakartuhu lian qad sahani liwatani bihi nafa